asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata ñaar fukk fan juróom ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa fukki fan ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñaar fukki ak juróom bokkul ci lim yu fàtt lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na li ñu ciy tere tere wattandiku moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma texe ci àjjana ak mucc ci sawara allahuma inni asaluka alfawza biljanna wannajaata min annaar allahuma inni asaluka alfawza biljanna wannajaata min annaar xadis bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallama nee na aji xarañee alquran dina ànd ak mbooloo malaaka yu tedd yu baax ya waaye waa ji nga xam ne it day jàng alquran eh, di ca sonn ci ijjantu gi dina ci am ñaari yool xadis bi buxaari ak nettali nañu ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almaahiru bilqur'ani maa safrati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqur'ana wa yatata'tahu fiihi wa huwa alayhi shaaqun lahu ajraan rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli suba waxtu na tàbbi six heures huit di juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñetti simili tisbaar treize heures trente di benn waxtu wu tegal fanweeri simili takkusaan seize heures trente di ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili timis 18h45 di juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom gee 19 h di juróom ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom benn loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina wàññil benn simili ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètres dina yokkal ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñaar di so 18h41